maa ngi tudd Dion Lopy de Stade de Reims de terrain maa ngi ci Wii Sport. positivement c'est bien pour moi parce que loolu moo nekkoon objectif bi. man maa bëggoon dem pour gagner une temps de jeu amoon des propositions en Ukraine Suisse Young Boys dama xam ni équipe bi am naa fa sama place. Et war a sama de pour moi, le bar baax c'était pas évident Le baax la ma plus de 26 matchs mais bëggoon aussi de plus mais équipe yi nekkul la ba naa fa nekkoon des fois aussi tactique coach bi day tax équipe et tout mais kontaan naa ci sama vous quand même. c'est quelque chose de spécial de plus je suis day bëgg di jouer rendez-vous Imagi à yi Ouais, c'était quelque chose d'exceptionnel et ça m'a beaucoup aidé de montrer de quoi de quoi je suis capable et tout.

yeneen club yi waaye mais am na lenn loo xamante ni mun naa ne sax des fois ñoom dinañ ko def te club yi dañ ko def moom mooy favoriser jeunes yi di leen jouer loolu bari di leen may seen sens waaw loolu laa gis ni xaw na am mais pour man du différence. moo gën a neex ci club bi mooy boo fa ñëwee doo doo sentir que ñii ñoom ñooy anciens yi ñii ñooy nouveaux yi ñëpp dañoo nekk benn. Euh, di doxandoo ci même objectif pour l'entraînement, comme je réponds, il yow a après l'entraînement, il entraînement. dëgg l'entraînement, après entraînement tout le temps en ma koy woo appel ñu waxtaan mook sama gars yëpp presque ak ak ak sama famille après loolu moo fa am après entraînement déggante ak nit ñi euh, nekk télé di seetaan et tout loolu kese fa am. Euh, pour man euh, loolu amul lu ci métti pour man ndax. xamoon naa ni sama continuer du liggéey Sénégal après foofu laay mujjee léegi daa dans ma tête préparé naa loolu sama bopp yàgg xam naa ni su ma demee dinaa toog ay mois yoo xam ne sama famille te loolu moo nekkoon objectif bi liggéey Sénégal pour jóge fi dem te xamoon naa ni aussi tamit fi jógee noonu lay demee moo tax man gisuma ci dara lu mel c'est des fois damay nam sama famille namm sama sama gars yi mais gisuma ci dara loo xam ne dafa métti dama ko dama ko mës gëm nag te dafa mës nekk ci man dama mës toog di wax même sama xarit yi sax ñu bëri moo tax mën nañu ma ko seedal su ma concentré wu ma def li ma war a def ci football dinaa dinaa réussir te xamoon naa su ma defee li ma war a def fii ma tool nii naa tool après nag dëgg la des fois di nga toog ay moment yoo ay moment yoo xam ne doo gis sa waa gaale doo gis sa famille doo gis sa xarit yeeg yooyu yooyu noonu yëpp te xamoon naa ne su su ma demee ba nekk professionnel après noonu lay demee mais après. def naa sama bopp bu yag avant ma fay guen ba may soog a intégrer Oslo ndax avant loolu compétir mon fenn c'était en 2017 ma ne ah comme que légui mang ci club di football jot ma fixer sama objectif ma légui nak objectif moy intégrer équipe nationale petite catégorie bi après nak ñu dogo fixer fixé objectif. comme ñep des fois dina nek di nga nek ci ay moment de complication yo xam nga nan est-ce que. li li ma bëgg ni dinaa ci jot mais da ngay xam ni da ngay concentré wu continuer sa travail te xam ni loolu ñëpp lay dal mais lu liggéey tamit doo ci gañe dara foog nga liggéey pour mën a jot li nga bëgg. John Lopy nit bu bu simple la bu bëri bu bëri foo bëgg waaw bëgg bëgg foo bëgg fecc waaye.

Cheikh Sadio Mané. Pourquoi Je suis sénégalais. en, plus, en plus, ça émane de mon blog. Youssou Dao. Pourquoi Parce que ce m'a donné nit ñi ràññee ma ci équipe nationale u grâce à lui. waaye dem dem na ci man lu bari. géej waay géejawaay géejawaay bien sûr que géejawaay mais géejawaay fa laa juddoo fa laa defee lépp. d'accord. ñoom ñaar ñëpp. Badji. waaye. ndax bu ma ke sélection moom laa njëkk bokkal après. am nañ ay job man ak moom yoo xam ne ñoo koy defandoo. <laughs> d'accord. parce que euh, récupération yi muy def mm-hmm. ak euh, sortie de ballon yi muy def mm-hmm. ak euh, impact physique muy wane tout temps ci match yi waaw. Mm-hmm. Messi. Ouais. Pourquoi Messi parce que c'est Messi, c'est le meilleur jour du monde. Ouais, pour moi. C'est vrai Meilleur jour du monde. Voilà. Hmm. Adidas. <laughs> Pourquoi Adidas Ah, ñoo fi <laughs> Les Liga. waaw les gars waaw parce que man euh, football bi laa gën a kii quoi football sam na Espagne moom gën a neex sam na Angleterre parce que équipe yëpp dañuy football équipe boobu même équipe bu nekk bas du classement ak équipe bu nekk haut du tableau bi ñoo ci am ñun football waaw. waaw <laughs> ah, dama ko bëgg de maa ngi dama ko bëgg nit ma nekk xale moom d'abord kontaan naa ci invitation bi di leen remercier yéen ñëpp hmm. li wax moom ci sama mbokku joueurs yi jeunes mooy ñu gën a liggéey